Aminata kon or nga am xaalis. ah Aminata waaw wax buy ma ñaata million d'euros nga am. amiin. Sénégal yëpp ngi naaw pour wut si Italie nga yaay maa nga def fi 15 ans. te ñëpp nee nañu fii la am xaar lu tax bu ñu ñëw Aminata. nga def fi 15 ans nga ne def lu tax ñibbi woo. lu tax ñibbi woo. ñàkk a pexe waaw Aminata ñu ngi la fekk fii ci Tréviglio muy grand bégué ànd ceeg Pape Diouf et la génération consciente mën nañu xam tey lan moo fi waral sa teewaay. sant Pape Diouf rek. sant Pape Diouf moo tax waaw mais dañoo gis ni que waa Paris toj palais des congrès

waaw wax léegi dama bëgg nag samedi nga commencé daan 100 pour cent people parce que dañuy bëgg am seen xalaat yéen it. parce que yenn saa yi aussi ñun dañuy def ne seen seen xalaat aussi baax na ci. waaw suñu jógee ci Aminata dañuy ñëw ci madame Tall. madame Tall saa yoo dañ koy monter après saa yoo pare rek. ñu bàyyi noonu. madame Tall ñu ngi la fekk fii ci Treviglio maanaam grand bi nga ànd ceeg Pape Diouf mooy Bergamo fii ci Italie.

soo bëggoon ñu changé dara ci 100 pour cent people wala ñu yokk ci lan lay doon. waaw kon nag kooku mooy madame Tall waa ñu bàyyi la nga maye say dédicace waa Sénégal ñan ngay nuyu ko. waaw ana monsieur Tall. instant bii nekk ci ginnaaw. léegi monsieur Tall nekk ci ginnaaw yow nga nekk fii lu tax nga bàyyi ci ginnaaw. may ah, kon daan nag ñaareel ba fële. déedéet. ah may yaay aawa. ah da tëj da ah. tëj. tëj nga buntu bi. Ah, waaw wóor na. kon jeex na. merci beaucoup.